ci teewaay bi fas yéene tamit teewlu déglu la taataan ci yow loo xamante ni danañu mën a jariñ ci suñu jàmbaar jooju kon sëñ Maxtaar daal ci liñ bëgg xam daal ci thème bu njëkk bi waxtaanu njëkk bi sëñ Saliou Mbacké xam gi nga xamante ne nii waa réew mi war nañ koo xam kan la ngir ñu jariñu ci moom njariñ loo xamante ni nii dina jariñ réew mi yëpp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 jàmbaar gi naw jëf la su ko defee bu ñu nee jàmbaar ja rek nañ xam ne waxuñu juddu ba waxuñu askan wa jëf jaa tax muy Cheikh Saalihu Mbakke radiyallahu anhu waa réew mi war koo xam nag bu ko waa réew mi waree xam nañ xam ab yarkat ndax nañ xam ne li gën a tedd ci métier yi mooy métieram yar ci yar la yàlla suñu borom yabale yonent yëpp pour ñu nekk ay jàngalekat nekk ay yarekat moom la arab tuddee ashraful mihan mbole métti yi métti mi ci gën a tedd mooy métti mi ci ëpp njariñ te bu njariñ la ñëwee matale bañ a bàyyi kenn loolu mooy al murabbi mu murabbi moom nag métier mooy at tarbiya mooy yare danañ ñëw ci tomb par tomb ci taarif luxawi bi ak istilaaxaat yi nga xam ne borom xam-xam yi indi nañ ko ci Cheikh Saalihu Mbàkke moomu nag di doomi sëriñ Touba nga xam ne ganiyun ani taarif Serigne Touba moom boo ko waxee nopp yëpp daañu xam ne mosuñoo dégg boobu baat soo génnee woon photom bi di ko wane it nit ku mel noonu amul donte ab malien nga wala ngay ab burkinabé it buñ la wanee photo yëpp danga ci d'accord mais buñ la nee photo Serigne Touba yi da nga ne lii moom c'est exceptionnel maanaam tey laa ko mas a gis kon kooku mooy way juram ñu tànnal ko ko ci diggante tànneefi way tànneef mooy soxna maam Faati Jaxate ma tënk ci moom itam tuuti kër gam jóge dëkk ba mu jógee dañoo fekkoon baax alxuraan ak xam-xam ak yar biñ ko indee ci sëriñ beet mu ëndaale alxuraan ak xam-xam ak yar moom soxna maam Jaxate defe naa bokk na ci euh, ak waa dalilin preuve bi ci gën a wér mooy sëriñ bi daf ko mujjoon génnee kër gu mag bere ko kër gu boppam ne ko li ngay jànkoonteel ci diggante xamle ak yar sa kër gu bopp lay doy moo waral boo duggee njaareem jóge Touba këram da féete góos boo tollee kër gu mag loolaat da koo jëfee ndax mbooleem soxna yi jaaroon ci moom di way juru sëñ Moustapha Saalihu di keneen daana jàngale masaalik ak mbooleem téere yi boole ci it daan jàngale alquran mubasharatan direct daf caa boole woon ne nee na su yaree nit ba noppi ci moom mooy su yaree ak soxna ba noppi ci moom soxna soosu buñ ko nattoo woon kuy lekk laaxu daqaar di xëy tool di naanum déegit dana fa mën a ne kooku ci ngeen di dégg nit ki bu xasee ba yaru bara bu nekk bu nekk dana fa mën a nekk kon ñëw nañ ci Serigne Touba mooy kan ak soxna Maam Faati Jaxate mooy kan Cheikh Saalihu Mbàkke moomu nag amoon ay xusuusiyaat yu bari ci sëriñ Touba ay jagle bokk na ca taqoog sëriñ bi ci ak ndawam taqoog sëriñ bi it bi mu xàmmee loolu istidaad la man war ñu tudd ko idaad dañ ko préparé mën naa cee tënk rek benn bu gàtt muy nee na daana sëriñ bi ni doom di taqoog way juróom ba nee na sax daana langaamu ci loosu ku kon loolu taqoo la mulaazama la waaye li doon doon ku taqoog moom ci bi goneet dafa meloon ne ab journaliste bu tiim ab événement ab xew-xew bokk na ci lam nettali nee na ku baax ki tëju ko diir bu yàgg ba mu tijjee nag mu mu wuti ko comme ni gone di def comme nam ma daw wuti ko nee na bi mu accès sëñ bi daf loxoom nii sëñ bi daal di taxaw sëñ Saali daal di taxaw weesoogul ak sa baay di daw kooku day mel ne amagul ci xel lu ñor waaye danañ fi indi xelam mu ñor fii moom ba mu ko àkkee bi ko sëñ Tuubaa defee nii mu taxaw nee na lam njëkk a seetlu mooy sëriñ bi maanaam sëñ Touba du yor mukk ci loxol càmmooñam alquran mbaa kurus daa daal seetlu ne sëñ Touba alxuraan ji mi ngi ko yor ci loxol ndeyjooram moom moom moom sëñ Saliou xamee na ca loola bi ki des it gis na ko muy for ay fepp bi mu foree fepp yi ba noppi la ko ne yegsil xanaa xamu ne boo njëkkoon ne yegsi ki sa yoon wu njëkk wa dangay ngay joggi ci kaw fepp yii kon muy niroo ko yàq Cheikh Saliou Mbacke nee na fa la doxee bañu yàq ba nëgën kon dañu bëgg andi sëñ Saliou Mbacke en tant benn cadre su ko defee bu ñu noppee nag mawqifam position bu ngeen ko xasee xam nag ñu andiwaat ko ci kooku mooy kan ci njariñ maanaam ñu mën koo jariñoo loolu nee na fa la doxee bañu yàq te ku ne xam na sëñ bi ne léeg-léeg mu jox la cere ju fanaan joo xam ne tey bu doon keneen na danaan la wetti ji ko mu ne la jëfandikoo ko mbaa ñu fekk ceeb boo xam ne ci suba la woon mu sedd guy mu jëfandikoo loola ko man mi forloo na ma ay fepp ceeb yu ñu doon wàccee ba ma noppi dama ko for def ko sama tenq di ko xool mu di ma xool waxuma dara ma seq ko mu daal may ree xëy na kon loolu lim bañoon ak yàq mën na caa dellu Cheikh Saliou Mbacke moomu nag di yarkat boo xam ne yarkat yi dañoo dañoo wax ne musleh dafa am ay charte maanaam nga defar nit dangaa war a nekk ku xam tey ku lewet tey ku yeewu ñett yooyu lañ soxla ci muslah amaa nag ki saalix moom mën naa bañ a am loolu dafa bëgg baax rek moom mën naa baaxal boppam xam-xam ba mën naa bañ a bari dafa bëgg baaxal boppam lewet ga mën naa bañ a demee noonu ndax wàllu ko keneen waaye boo bëggee nag branché keneen dañ ne na nga nekk aalim na nga xam na nekk xaliim te lewet ndax léeg nga gis borom xam-xam boo xam ne ñàkk lewetama tax mënut a jàllale message na nga nekk xakiim mbir mu nekk na nga xam na nga koy invité bu dikkee na nga xam nanga koy partagé ak keneen loolu sart la ci maanaam muslah mu doon Sëriñ Tuubaa ci yu baree bari ci ak ndawam ndax daana wax naan damaa xam yoon wi Sëriñ Saaliw daana ko wax ndax nekk naa feek borom yoon wi fukki at ak yaar te keneen ku ko yor ku nekk maa ngi fi bokk nekk loolu xekk ma la sëñ sëñ wax dëgg yàlla bokk na nekk feek borom yoon wi fukki at ak yaar te keneen ku ko yor yéen a fi bokk nekk tàmbalee ko ci magam ju baax ju tedd ja Cheikh Moustapha ba ci Cheikh Abdoul Ahad Serigne Abdou Khadir mi ci mujj kon ñoom ñëpp dund naa ak ñoom moo tax damaa war a xam yoon wi nag ndax nekk naa fekk waxul na damaa borom yoon wi ma jur loolu seen axar loolu du débat intellectuel borom xam-xam waxee noonu mais da ngay da ngay da ngay fexe ba bokk mais damaa xam yoon wi ndax nekk naa fekk borom yoon wi fukki at yaar te keneen ku ko yor ku nekk maa yow fi bokk nekk kon kon bu yoon tegee ci loxoom dañ ci ñëwaat yeneen détails yu gën a yaatu kon ku war a xamu yoon la bi ki des sëñ Saalihu Mbàkke mu ñu war a jariñoo awaw ah, ndax dañ ne yonent bi saa sallam ko waxoon ci benn xadis mu ne al jalisu saalih wal jalisu suu ku baax ku ñu war a taqool ak ku bon ku ñu war a sori daf ne salaa salaam mooy nettali aljalisu saalih mooy ku baax ku ñu war a taqool daa mel ne jaaykatub laj koloñ noonu laa ko mën a wax pour mag ñi dégg ko wala jaaykatub parfum ni muy jariñe noonu la ku baax di jariñe keneen Cheikh Saliou Mbacké jariñ na waa réew mi lu mel ne attar muy jaaykatub parfum ni muy jariñe client bi dugg si ci place bi ala aw juhin nag ci ay anam anam gi jëkk jëkk ci jariñ gi foo fekk jaaykatu parfum day mën a mayee ñun ñëpp mën nañoo ñëw kenn ko ne mu xeeñal la gratuite te du la laaj dara benn mën naa ñëw it doon ko jaayee téeméer wàññil nu ko en tant que dongay daara noonu jaay nu ko 400 ñaari njariñ a mën naa ñëw it jaayi ko nu nekk ca biir place ba xet ga di ñu xeeñ te du ko sañ a bañ kon ku baax moom foo ko séenee mbaa nga jege ko mbaa nga laal ko ñetti njariñ yi da nga ci am benn bokk yi dama bëgg lépp di mantiq aqli duñ fa wax loo xam ne day delluwaat ci ay marañi yoo xam ne day nekk shuzuuz ñuy wax dañu nekk en direct rek ay nattuka ay maayir yoo xam ne nattukaay xam ne dañ koy gis direct moo tax yonent bi saa sam ne kon da ngeen wuti ku baax danañ la jëriñ mel na jaaykatu parfum bi yomba la njëgg mbaa mu may la ko mbaa nga toog di waxtaan ak moom mu lay xeeñ te du ko sañ a bañ aljalisu saalih Cheikh Salim Mbacke nag ñett yëpp daje na ci moom ñun ñi ñëw ci moom takkook moom noo jënd si woon laj koloñ laj mu yombalal nu laj bi wala parfum bi bañ mën koo am ci njëggu yomb ñi fi ñëwoon daan siyaare di dem te léeg-léeg ñu yendu fi mbaa ñu fanaan fi ñooñu ñooy ñim ko may grativite ku ñëw mu laala laj ci sa tenq ku ci ñibbi nag saalit nga ba woote sax nag waaw ndax ndax njëriña mel noonu ñeneen ña nga xam ne ñooy ñu dul nun te du ñuy siyaare si dem mooy waa réew mi ñoom ñooy ñi toog ci biir réew mi xetoog sëñ Saliou di leen dugg ay njariñam di leen dugg te ñoom sax wax dëgg yàlla wax waxaale si wuñ <laughs> jënduñ mm-hmm. ñetti anam yooyu rek nga koy séddale mm-hmm. su ko defee kooku mooy jaanib ijaay bi bi mm-hmm. kooku rek mooy boo taarifee sëñ Saliou waaye nag ginnaaw wax naa ne aljali su suu dafa am mooy kuñ wërta àndalit danaa ko indi li takk mi pour ma compléter yént bi saa sam ne na ngeen watandiku ku baaxul daa mel wal ay uppukaayam yooyu gaa yi di defaree yeneen yi nee na kooku buy upp li ëpp étingel bi mooy xel xal bi dana naaw laal sam yére mu lakk wala mu lakk sa yaram benn ngoog wala boog saxar si gand la nga jóge fa am soj ñaara ngoog mooy muy tàngaay nga nekk fa ñaqtooy xëpp ñetta ngoog kon loolu mooy tudd almadarrat mooy lor yi nga xam ne dañ koy wattandiku ci nit sëñ Saliou Mbacke mucc na ci kii upp taal bi waaye doon na jaaykatu laj koloñ bi wala parfum bi mooy al jalisu saalih wal jalisu soo léegi kon wax nañu waa réew mi ni ñu ci sëriñ bi mooy man toog naa ku dul ab julit ma tudd sëñ saalihu mu ne ma vraiment kookoo baax waaw lu ci yoonam ak lu mu xamee baaxam gi nattu ko ci taqawallaahi de du ragal yàlla ndax xamul luy ragal yàlla xamul sax sëñ lim gouverner lim jiite mais moom dafa yëg ne sëñ saaliwu rek ci ay lim sentir mooy ku baax la. loolu mooy li ma leen wax ne ki ñëw di jënd si. parfum bi di ko xeeñ. mooy Cheikh Saliou Mbacké ba ca katolik ya am na màggal goo xam ne fii ci Touba. Moustapha Guèye rahimahullah moo wax sëñ bi ten tombeeg ma den rek sëñ bi mu ne ko sa chrétien ba ñëw na moo daan indi xorom sax jóge kaw lax xool ma loolu. ki bëgg sëriñ bi. te moom du jullit. wax waxumala sax di ab murit ak di ab leneen waaye du sax ab jullit. war warlul sëñ bi xoromus màggal di ko ëndi ma ne nag man kenn man a nag xaaral ma gaaw jël bind lu sëñ bi tontu nan lay réassuré sëñ bi daal ko ne anamoom mu ñëw mu daal di koy nuyu téye ko nii léeg-léeg mënu ko nacc bay bëgg ki mu téyewaat xam nga noonu muy def bu nekkee ci mbooloo waat di ko war ne ko yëg naa la mhm. tombe chrétien boobu mhm. dafa yoroon ay papier bëggoon dem Amérique mhm. mu jox ko sëñ bi ne ko damaa bëgg nga ñaanal ma ci sëñ bi dagg lépp ak groupe ak màggal ni ngeen ko xamee mhm. téye kayit yi di yëkkati par benn di ñaan di tofli mhm. kon loolu mooy aljalisu saalih mhm. kooku dey bu doo bu dul woon ak mbaaxuk sëriñ bi ak yaatoom ak daj waa réew mi vraiment buñ ko ko waxee da koy mettre en côté fenn da koy jël teg ko fenn continuer la muy def keroog am na ci sëriñ bi loo xam ne keneen amu ko ci ngir won ko ak yëg mu noppee daa yegg ci tàllal loxoom ginnaaw bu ko joxe waatee par pièce a baa baag yam àndal yëpp daal di koy tàllal ñaanal ko kon kooku mooy nit koo xam ne njariñam dafa daj caami yàlla yëpp muy ab yarkat xam naa dana ñëw ci jaanib tarbawi bi insha allah rabbi waaye su su ardu bi kii rek mhm. da ngay def signe mhm. ñu jëlaat ci beneen tomb mhm. ndax buñ ci jël rek mën naa jël lu bëree bëri kon sëñ saalihu doomi añ Tuubaa sëñ Saalihu njariñal ñëpp mm-hmm. ñu misaal ko ci jaaykatub mm-hmm. laj koloñ bi mm-hmm. njariñal ñëpp la musal nañ ñëpp ci aw ayam ndax moom du uppkatub taal asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf jërëjëf jërëjëf tabaarakallah tabaarakallah eh, yaakaar day gi ñu amoon ci thème bi alhamdulilah leer na ko suñu bopp ah yàlla tabaarakallah te yaakaar naa ne mbokki jullit ak mbokki bi yi koy seetaan tamit ak waa réew mi dina leer seen bopp. ngir jot suñu ay vidéo di ngeen di abonné fii ci seen chaîne YouTube feex Production ngir bës cloche bi bokk ci programme bi national international